waaw bu mu la fi fekk mukk nga bañ cee jëf loo doon def ci lu baax ci jaamu yàlla ak joxe sa alal ak joxe ñam ak jàng alxuraan ak julli ci yonent bi ak jàng xasida na ko yokk mu ni Seex Bàmba ku teewe guddi gàmmu di joxe ñam tey jox alal ñay gàmmu nga xam ne dangaa teewe guddi gi di joxe ñem di joxe sa alal wala bi dirhami Bamba waxoon te bu tànk gën maanam teewe moo ci gën mu ni waat Seex Bamba ne kuy jox dërëm kuy gàmm kuy jox dërëm kuy gàmm mel nga ni ku teewe badar tey ràmm teewe xunday ni mel nga ni ku teewe xaybar mel na ni bokkoon nga ca saaba ya ña doon xeexal lislaam maanaam xulafaawul arbaxa képp koo xamante ne boo fekkee woon ba yonente bi di xeex ngir lislaam taxaw danga bokk ca ñoom Ababacar ak Ousmane yore say ngànnaay jàkkaarloog noonu lislaam yi bu gàmm jotee sëriñ bi nee na te te nga gàmmoo def ko ni ñu ko santaanee am nga yool boobu képp koo xamante ne da ko dundalul kon ëllëg yomal xiyaam wala laata yomal xiyaam ba yonante bi jàkkaarloog noonu lislaam bi bu la fa fekkoon boo nee da nga cay bokk doo ca bokk ndax gii lii moo gën a yomb te nanguwoo koo def moo tax ñu ni ku ko def mel nga ni teewe nga ba Badar teewe xunay ni dellu teewe xaybar dimbali njol makka ca noon ya koy lor waaw dimbali njol màkka ca noon ya koy lor mu ni ixyaau mawlidil basiir loolu wax na ko ca jës bu mu ni yaxme xiyaal wa du yóor dellooti wax yaxmi xiyaa wa du yóor la bàmba dellooti wax mu ni dundal guddi gi day tax a dund day tax a wér day tax a am mbooloo dundal guddi gàmmu day tax a dund day tax wér nee na day tax am mbooloo mu ni fii sifaa u lisidóor waxoon na ko dana tax tamit dana leeral ab xol laylatu mawlid nabi nag mooy guddi gàmmu nee na ay xibaaram moom yi nga xam ni warees warees na ko cee leeral mënees koo leeral ci kàllaamay wolof moo tax mu ni xajul ci waxtaanee wolof ci gàttal daal ni Moustapha gëne la gàmmu gënee màggalu kilifa yépp waaw waa ji nga xam ni nag moo njëkk a gàmm muy Abu Saïd Xudri yu boroom xam-xam bu mag la bu dëkkoon Irbil moom ba muy taxawal gàmm moo njëkk taxawal gàmm ci kaw suuf Abu Saïd Xudri yu la njëkk la tax mu njëkk koo taxawal nag des na ci ñëw ba mu koy it jar naa leeral kooku gisuma ñu ko raw fii ci jamono Abu Saïd Xudri yu ndax suñuy xam-xamu borom jamono ñépp maase nan di tànk ci moom bii la dëkkoon ba muy taxawal gàmm mi ba muy taxawal gàmm moom Abu Saïd Xudri yonent bi am na ñaari siècle ci biir suuf bay dugg ñetteel bi siècle maanaam yonent bi am na ñaari ñaar téeméeri at ci biir suuf bay dugg ñetti téeméeri at moom Abu Saxiid Xudri doon boroom xam-xam bu sell bu nangoo jaamu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal koy feeñoo ni ko aboo saxanet xudiri yu dooma sàkkal bis ci sa jaamu yàlla gi nee na ñaareelu guddi gi moom muhammad alayhi salaatu wasalaam daal dooma sàkkal bis ci sa jaamu yàlla gi nee na ñetteelu bis bi yonent bi feeñuwaat ko muy ñetti yoon te benn baat rek la koy wax moom sang bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci la xalaat ban bis la war a taxawalal yonent bi sallallahu alayhi wa daal di xalaat bisub juddu yonent bi sallallahu alayhi wa moom moo ko njëkk a woote bi yonent bi am ñetti téeméeri at ci biir suuf bi mu ko wootee yëgal ko jullit yépp ñu baax ñépp fekk se ko ca mu taxawal ko xamal nit ña ni ndigalal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam la ca am ndax ñoom ku leen gént danga leen gis sallallahu alayhi wa gis ko lu jafe la ndax laaj na sell gu mat sëkk laaj na laab gu mat sëkk tasax ja léegi bi nga xamee ni def na ko première année deuxième année mu defaat ko mu gën a neex ñetteelu année bi mu jub ñëpp di ko waaj àdduna bépp naan gàmmu Abu Saxiid Xudri yu gi yàlla natt ko ci ñàkk te bis bi lépp da ci doon def ay teraanga ak i berne mu daal di xalaat xalaat xalaat amul lu mu jaay te yàlla natt na ko ndax yàlla bu lay liggéey loolu léeg-léeg dalay nattu te munta tëbal bis bi mu daal di jël ab saakoom dem ca àll ba moom aboo Saxiid Xudri mu def ci ay xeer ba mu fees mu ñaw saako bi comme boroom xam-xam la te jamonoom nit ñi bëgg nañ ko xam nañ ko ci jub xam nañ ko ci dëggu mu dem ca commerçant ba gën a mag wàcce fa saako xeer waaye ma nga ñëw saako ba kenn xamul la ci biir saako ba mu xool li nga xam ni dana mën a defar gàmmu gi mu leb ko waaj yi ni ko ta saako bii ma la jox doon ci ab garant waa ji li ko aboo sax loo bëgg rek tanu yor ko dana la yomb ndax xam na ni loo wax di ko def mu jël ñu lebal ko lim ba nga xam dana mën defar gàmmoom ca jamonoom commerçant ba daal di jël saako ba denc ko comme que garante la bi nga xamee ni dem na ba nga xam ni gàmm na ak gàmmoom ba gàmm gi jeex la mu war a teral nit ñi li ñëpp teral na leen ko lan war a jàng ci alxuraan jàng nañ ko lan war a def ci ay salaatu ala joxe na lim ya nit ñi lekk nañ ba suur joxe na ñëpp paas lépp ngir yonante bi sallallahu alayhi wa ak dundal guddi gi bis ba jàll commerçant ba yónnee ndaw ne ko nee ko tey la ma waxoon Abu Saïd Xudri yu dem fuy ji commerçant bi ñaan ko ni ko may ma ba fi ak ay weer ci kanam maanaam jox ko ab lim ab dikk commerçant bi ni ko yow kat danga maa waxoon du weesu tey te ma gëmoon say wax moo taxoon waaye xaalisu marchandise la léegi ginnaaw dénk nga ma marchandise te xam naa li nga ma dénk lu foor la tee ma ko dajji saako bi ñu jël ci la nga xamante ne moom nga ma yoreel ñu jaay ci valeur lu tol noonu delloo la sa saako te moom Abu Saxiid Xudri xam na ni commerçant bi bu dajjee saako bi ay xeer la jay fekk ndax ma ay xeer la ci def mu wax wax waa ji ko dina dajji saako bi parce que dafa soxla xaalisam commerçant bi bi mu jëlee paaka daal koy euh, dagg dagg saako bi bënn ko rek xotti or bi di tuuru boo saxit xuddur yu ci la yëkkat di jooy jooy yu mitti ndeysaan commerçant bi ni ko yow li lii ne sa saako bi ci or di tuuru nii mu ëpp li nga ma yoreel fuuf ban nga ma cee fay te saako bi sax du ko yëg fekk Abu Saïd Xudri yi moom li muy jooy mooy xam na ni bëgg a dundal guddi gi yonante bi sallallahu alayhi wa moo tax mu jël ay xeer def ko ci saako bi ñaw ko mel ni ku ko def garantie mel ni marchandise lu am solo da caa nekk waaye bi ko waa ji bëggee taxawu bëgg koo toroxal bi waa ji dajjee saako bi suñu boroom soppi xeeree muy or moom loolu moo ko jooyloo ngir jëmmi rasulillah alayhi wasalaam kenn du ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala nga yëkkati dara ngir yonente bi suñu borom ji la gàcceel istuwaaru aboo Saxiid Xudri yu ci gàmmu moom mi nga xam ni moom la yonent bi joxoon ndigal mu njëkk a gàmmu bi yonent bi di am ñetti téeméeri at ci biir suuf maanaam troisième siècle ba mu gàmmoo tàmbalee gàmmu ñaareel at ñetteeli at ci la ko natt bi dal waaye sunu boroom génnee ko ci nii kon lu mat a leeral la ci jamono jamono ji waaw moo tax mu ni déglul ma wax la waa ji njëkk a gàmm gannaaw rasulullahi moo ko sàmm Abu Saïd moo njëkk a feeñal gàmmu ci xarni saalisi moo ni ràmm mu ni boroom tasawuf la bu dëkkoon irbil laylatu dina bii lay faggul ren ba déwén lu mu sàkku jox ñay màggal loolu soññ na ko soññ ngoo xamante ne daanaka bu gàmmoo ba ca suba ga day tàmbalee waajal gàmmuk déwén mu ni ren ba déwén lu mu sàkk jox ko yo def ko ci gàmm gi dem na ba foofa ñi laa jihaar lan wax ca badar mu ni taalif na ay téere yu bare bare bare yi moom Abu Saïd Xudri yu yoo xam ni li muy xable ci téere bi du dara lu dul yonante bi sallallahu alayhi wa ak gàmm ak yool yi ci am ci ku gàmmu te am ci pas-pas na nga xam ni noonu lan war a gàmmoo taalif na ay malu yi dee fi gàmm yu xam ne mbooti Moustapha ak gàmm dem na ba naan dërëm bu jëm ci gàmm doy na xusub dërëm ëllëg yomal xiyaam dërëm boobu mën na laa ràmm wax ni jox la juróom-ñaar fukki junniy diinaar te ña fa teew du ñu tàbbi fii naar jox la juróom-ñaar fukki junniy siyaat far sa juróom-ñaar fukki junniy siyaat waaw jox la juróom-ñaar fukki junniy xasanaat waaw far sa juróom-ñaar fukki junniy sayaat jox la juróom-ñaar fukki junniy xasanaat far sa juróom-ñaar fukki junniy jar na gàmm mbokk yi wubbi juróom-ñaar fukki junniy wunt ca ndabi xéewal ya boroomam di sant mën na juróom-ñaar fukki junniy wunt wunti balaa ak mbas sa kër du gent te gan gu ñëw yor junni barakaat suy dellu yóbbu ñaari junni xasanaat téb bu nekk alfu alfa ja wa alfu xamrata wa alfu sawja muy junni bi jigéen ci xoru xay ni ki gàmmu te teg ko ci nan war a gàmmoo ëllëg yomal xiyaam sunu boroom dana la fay bokk na ci lim lay fayee junni jigéenu uru ay ni ñu doon say jabar waaw muy junni bi jigéen ci xuur xay ni ñu jox boroom gàmm ga doonal may ni kon ni nuy gàmmoo mat naa leeral ndax wa in takun akila risqillaahi wa anta fi kulli samaanillaahi wa lam tatub li talabil kufraani mujtahidan fa daaxilul niiraani boo koy màggal daal bu ko màggal ngir bëgg dërëm waaw ngir lu la cay jox rek ngay def ci sa poos yow del jël sa alal di ci def lu la ci jox nga def ko ci bu leen di màggal guddi yii ngir bëgg dërëm na ngeen di màggal guddi yii ngir bëgg ngërëm te na yàlla rek tax ak yonente bi sallallahu alayhi wa ndax lépp lu waaye jëful ak lu mu rëy rëy te yàlla taxul du ca am dara doo ca amub yoon lu mu rëy rëy nag laa wax ak lu ko nit ñi tudd tudd loolu nga cee am képp koo xamante ne da ngay def lu nuru lu baax te yàlla taxul yow na ko nit ñi tudd caméra yi jël ko nit ñi tàgg la ci loolu rek nga ci jublu yow bu yommal xiyaamee sunu borom dina la seetal keneen keneen ko lay fay ko dul yàlla ndax lañ nga ca bëggoon sunu borom dana la ko defal te war na noo leeral li waral màggal yi ak bis yi nga xam ni moom lañ war a màggal ndax alxuraan moo ne wa man yuasim loolu alxuraan la kenn du ko dindi mu ni guddi gu nekk am na ay xar baaxam yoo xam ni si soo ko màggalee jot baaxam intoxi laylata bi sikri rabbika tusbihka yawmi wulidat ko ummuka guddi goo màggal ngir buur yàlla rek te yàlla rek tax guddi àjjuma rek mooy màggalug yàlla moo tax nit yàlla yi bu loon daan def ba guddi àjjuma dañ ko daan yokk waaw in tu'i laylata bi shikri rabbika tusbih ka yow mi wulidat ko ummuka mooy ku mooy ku màggal guddi yi ngir buur yàlla rek bu bu bësetee suñu borom jéggalal sa bàkkaar yépp waaw te weer yi fukk ak yaar nag te bis bu bu nekk weer wu nekk am na bis bu rafet boo xam ne manees na caa màggal soo ko màggalee jot ca mbóot ya waaw xam nga araab yi boo demee ci masaalikul jinaan sëñ bi leeral na ci lu am am solo xam nga arab yi amuñu woon genn màggal lu dul rek Ousseynou yow ma sowara ñoom dañ ko daan màggal bu baax a baax te ñooñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen defar moo def ñoom li muy def ci ñoom yow ma aswara dañ ko daan màggal bu baax a baax a baax kon ku ni màggal bidaa la wala nga ni gàmmu bidaa la na nga xoolaat sa alliwa alliwa ju gàtt rek moo la jàpp ak mën a wax loo xamante ne tegoo ko ci ay dalil kon mbokk yi foofu la ñuy wàcce sunu kàddu am na ci nag euh, kayfayaat boo xam ne dinaa ko joxe ci gàmmu gi ci julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa ci wàllu wërsëg ndax dafa am ku ma wax ni ma xaalis baaxul ma ni ko bu nekkee ci loxo yu baaxul waaye bu nekkee ci loxo yu baax moom baax na ndax jumaa yeeg dëkkuwaay yeeg dund beeg li ñuy sol lépp rek xaalis a koy def kon xaalis baaxul moom bu nekkee ci loxo yu baaxul ni mu mën a defaree noonu la mën a yàqee waaye yàlla nan yàlla nan yàlla nan defaruta am ko loolu moo ci am solo nga xam ne buñ ko yàlla joxee du mu bew te nan ko mën a delloowaat ci yàlla lii nag eh, dinañ ko joxe ci weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jëm ci wàllu luy ubbi wërsëg taggaaw ca lool nga xam ni ñun moom dañoo tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam direct te am na lu nu am na am na nag lu nu doon ci moom ndax yàlla mi amul kumpa xam na ni lu ma dégg ci safaan wala natt yu dal doomu aadama damay am métti lool day mel ni man sama jëmm ji la dal lu ma dégg tamit lu dal doomaadama loo xam ni xéewal la damay am mbégte lool loolu moom yàlla mi xam xëy bu xam lu feeñ xam na na bu laa koy seereel te su ma sañoon doomu aadama yépp jàmm la ni am su ma gisee nit ku ñuy def lu métti tamit mu doon image doonee sama groupe damay bëgg ñu génne ko ndax bëgguma xool ku nuy mettital wallaahi billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa te lu nu xam ci lu baax dana ni ko fang wax ko ci waxukaay ba nit ñi mën koo jëfandikoo kon mën xam naa ni wama shahidnaa illaa bimaa alimnaa yéene naa ñëpp jàmm mën naa seela lool ci sama bopp lii nag képp ku ko def am nga ci ndigal ku ci jot koo xam ni bëgg naa am al awlu min allaahi maanaam ndimbal lu jóge ci yàlla ndimbal lu jóge ci yàlla nag ñépp ko soxla waaye ki nga xam ne da koo bëgg liggéey nee nan bu paree suñu boroom day gëdd malaaka yi pour ñu defal ko taraanga waaw ku ko liggéey am barke am sutura am xéewal am wërsëg dina am xéewal ci lu dul ab coona waaw dina am xéewal ci lu dul ab coona yàlla nag bu lay jox wërsëg ci la ngay yëngu la lay barkeelal mën naa nekk weer de la goo xamante ne heure boo jullee fajar ba pare nga koy def da ngay a jóg di ko def bala ngaa bala ñoo bala ngaa julli suba julli fajar ginnaaw julli fajar nga koy def waaye ku ko def bu soobee yàlla suñ borom mën na laa ibbil bunti xéewal yépp mën na laa ubbil bunti wërsëg yépp mën na laa ubbil bunti taraange yépp moom du la jafe ginnaaw boo jullee fajar ba noppi dangay werd allahuma salli alal mawsuufi bil karami wal jóodi allahuma salli alal mawsuufi bil karami wal jóodi 313 nga koy werd nga werd ilaa rahmatan minna wa mataan ilaa moom it nga werd ko 313 ilaa rahmatan minna wa mataan ilaa xinin 313 moom it nga teg ca talzam bi sayka ba tay si haysin sayka ba tay si ba haysin sayka ba tay si ba moom it nga ñaan yàlla la nga bëgg ci wàllu barke ak ci wàllu xéewal ak ci wàllu mbooloo ak ci wàllu liggéey bu dox soo ko defee fukki fan ak juróom rek maanaam danga gis bunt yu taraange ni mu lay ibbi ko ni ni muy ñëwee ci yow waaw ngeen xam ni am ci boppam moo moo yeex waaye wut moo yeex waaye am lu gaaw la képp koo xamante ne tamit danga cee bëgg am ay leeral dangay woote ci numéro bi 78 530 69 81 wala nga woote ci 76 883 18 76 numéro bi boo gisee ñu koy joxe ñi nga xam ne dañ koy dégg buñ ko déggee nii seen xel neexul day laaj ay leeral bu ko defee nii ñu ko waxee moom noonu la waaye ku ko xamewul noonu rek ñu leeralaatal la ko mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu.